de cette euh, visite aujourd'hui. Euh, nous, nous sommes venus il y a quelques semaines pour, euh, pour moi en tout cas, découvrir la ville de Kaolac et l'environnement économique. Nous avons fait un certain nombre d'études et nous revenons aujourd'hui convaincus du potentiel économique de la ville et du potentiel commercial. Donc notre première démarche aujourd'hui, c'est de nous présenter auprès des élus, euh, de la municipalité, euh, d'informer euh, les élus de notre intention de nous implanter sur la commune, de partager avec eux notre projet, de voir également quels pourraient être les emplacements pour pouvoir dans les semaines et mois à venir, plutôt les semaines, pouvoir travailler en partenariat avec les élus, puisque dans notre approche du développement économique en région, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas le faire tout seul. Euh, nous venons avec un certain nombre de moyens, mais nous avons besoin de la connaissance euh, de la ville, de l'environnement économique des élus et du terrain. Alors, concernant CFAO Retail, nous développons euh, l'activité depuis un an, donc c'est une activité très récente. Nous avons ouvert un premier magasin à Dakar, trois autres en banlieue à Dakar, et à partir de 2020, euh, un de nos objectifs euh, majeurs est euh, d'implanter nos magasins maintenant en région. Nous avions identifié un certain nombre de villes et une de nos villes prioritaires est Kaolack. Nous dañu à pour def une visite de terrain à dëkk mais comme nous avons ni ko nous avons ak lu jaar de kër boo fa demee da ngay aw ci buntu ba bu nous ni nëbbutuwoo donc loolu sunu ci maire pour ñëw saafanteeg yéen xamanteeg yéen euh, tamit wax leen tamit lan moy sunu mbébét ci dëkk bi. lu simple la moy que ni euh ci groupe bi mo bok euh développement wu dëkk bi mo nu ñor quand je dis dëkk bi moy développement wu Sénégal. et donc euh, Kaolack ci biir Sénégal la bok té di jouer rôle bu rëy ci Sénégal donc développement Kaolack forcément dina ñu ñor alors sunu objectif moy liggéey ak mairie bi liggéey ak doomu Kaolack yépp

également ci supermarché bi donc euh, euh, vraiment partenariat bo xamanteni c'est durable ñun mom la ñuy chercher bo xamanteni aussi aussi fay jaar ci yoon nga xamanteni ni dëkk bi Kaolack ci bopam ak ay habitants Kaolack dañ ci gis sen bop ñun tamit suñu entreprise gis ci bopam ngi am mbekté de len dalal ci commune Kaolack parce que dañoo dugg wax liñ bëgg dama bëgg def li pour wa Kaolack man ci jëriñu kat yi commerce la nak jaay ak jënd moom foo koy def commerce la te ku dudd kaw la xam ne porte d'entrée pour commerce la ñu ne tamit li ñu war a def wax nañ ko ñi ñu war a jënd ci dëkk bi xam nañ leen ñi war a liggéey tamit ci dëkk bi lañ dëkk parce que ñooñu bu boobaa ñun aussi dañ ci am kontante parce que dinañ jël suñu doomi dëkk kon dañ leen ubbil suñu bunt wax leen dal leen ak jàmm ci turu Mariama ak conseil municipal bi parce que conseil bi mooy décider ne toog leen conseil bi aussi mo ne mënu len fa tok te yakar naa niñ ñu ni dina am jeexital parce que ñun ñep dañ teewaloon conseil yi fi nekul pour buñ ñu leen ni ñi kat dig in lii la ñu indil bu baba délibération bi ci war dañ ko sétu jox len ko ñu tok ci suñu dëkk. man dal lima gis lima tew ak lima fekke jaar nañ fi ñu wara jaar fëgg nañ fi ñu wara fëkk ubil nañ len bunte bunte beegum ku ku ñëw si dëkk daal laaj ne ana borom dëkk ñu ne la fii la nga ñëw ñëw ne maa ngi nii lii laa fi bëgg a def je crois que boo ko teer euh, teerwul itam bu baax da nga ko ubbil sa bunt ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen njott yàlla na yegg